أذكر الله ذا الورى بانتفاعي بكتاب ساق لدى بانتفاعي أذكر الله ذا الورى بانتفاعي بكتاب ساق لدى بانتفاعي asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu daari Hizbut Tarqiyyah am na ngontu mbégte di ngontu tawféex muy dikk bu bette gu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général di murit dikk fii ci daara ji tey jii bisub alxames dëppoo ñeenti fan ci weeru kor yi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ati gàddaay gi di juróomi fan ci weeru mai atum 2022 mu agsee nag jëwriñu daara ji moo ko teeru moom Serigne Youssou Diop fii ci buntu bâtiment bi nga xam ne moom la ab dalam ci biir daara yi Hizbut Tarqiyyah moom ci néegu bopp ginnaaw bi agsee li muy bette bette terewul jëwriñu daara Hizbut di Serigne Youssou Diop am na lenn ci jëwriñ yi nga xamante ni woo na leen ngir ñu teew nuyu sëriñ bi saafonteeg moom jottali ko seenug cant sunu sunu sunu jëwriñ jaa ngi nii gën a mbàkke du tay du tay du sonn moom li moom li lépp man nee na nee na sëñ Sidi bi ma ko laa koy wax ne ko dama ko ne sëñ Sidi mi du tay du sonn ci ci jëwriñ yi nga xam ne liggéey bi saa su ne mi ngi koy jañ suñu mu ne nag lu yéeme la. waaw suñu taxawal si ji. nañ ma kii la. ak la mu doon la mu doon ci sëriñ la mu doon ci ko jëkk xam ñëpp. njëkk ko tëral ñëpp. nee na suñu maam ju baax ja suñu bàkk Ibra mel na nii la mu xam ci sëriñ bi mel ni moo ko jëkk xam ñëpp jëkk ko tëral ñëpp. waaw jëkk ko tëral ñëpp. jëkk ko tëral ñëpp. mel na moo ko jëkk xam. jëkk moo jëkk xam moo jëkk tëral sëriñ bi. loolu rek lii seen seen seen seen seen seen seen seen ànd bu baax bi. sëñ bi rek moo moo moo tax mu boole leen boobu ñun waaw lépp moom lépp moom lépp moom waaw lu mat a ñaan ñaan na ko borom nangul na ko lu mat a faggu faggu na ko borom jubal ci ak borom lii nag ci li mu faggu li mu faggu li mu faggu wala faggu bopp mu nekk. daal yéen ci faggu teewul ngeen. alhamdulilah nii nag. mooy firnde ji. mooy firnde ji nangul nangul nañu si sa sa. firnde la ji wala nangul nañu. nangul nañu si sa. sëñ Abdou Salaam Dieng. moom itam moom itam moom la xam. imaam la fi tey ñu ngi taxaw njàngale bi. jàmbaar la lool quoi. mënut mënut a ñàkk de alhamdulilah ñàkk de a ñàkk de mënut a ci kan ci kan ay liggéey laka xadi mooy euh, yéen jëwriñ yi nuyoo waale ngeen membre yëpp yëpp la foo ko bi léegi nag dañuy dem teewlu ci xasida yi bàyyi këram la néegam la ku mu woowul sa man mii de bu mu woowul du ma kon nan xajal nañ ko xajal ak njabootu boppam gi <coughs> waaw لا إله إلا الله noonu la ñu nag ba waxtu gee ci la sëriñ bi soog a agsi jëm si ci jàkk ji daal di ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoo doon jàng xasida wane itam mbégteem lool ci teewaay bi rek dafa am góor goo daan jàng fulku àggal ko ba noonu dafa naan ndokk bi ci bokkee nee waaye kàddu googu barab bi nag di tey ba di barab bu yees boo xamante ni sëriñ bi moo ko daloo tey ci fànn yëpp lépp ñu yeesalaat ko mu dolliku ci yeneen barab yi nga xamante ni këru boppam la ci këru sëriñ Tuubaa yi nga xamante ni nekk na fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ginnaaw nag dikk gi ak dal gi ak ni nga xamante ni ni lañ ko bëggee woon ci ak teew sëñ Youssou Diop di jëwriñ ñi daara Hizbut Tarqiyyah jotee na ak cant mboolem ñi nga xamante ni ñooy membre yi ndax barab la boo xamante ni li dikk gi bette bette amul kenn koo xamante ni dikk nga fa te dañ faa sàkku sa teew ba ci kuréelu xaside bi loolee nag di li nga xam ne moom la ñu xamee daara Hizbut Tarqiyyah ci yar ak taalibe di firndeel itam la nga xam ne moom lañu ñu Cheikh Saliou waxoon ni kuy ñëw sa kër doo tàggoo tey jii Cheikh taxa Mountakha Mbacké laat na ko ci dikkam gi ci daara bu Tarqiyyah ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba mu motale ko te ñu ànd ko ak moom. bi ñu jullee ba àggal nag ci la ko mbooloo ñu lépp ànd ak mbégte mu yeesalaat ay cantam jaar ko ci jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëriñ Youssou Diop soog a ñaanal mbooloo mépp ci loolu nag biñ ko ngee ba agsi jëwriñu daara ji leeral na dikk gi tawfiix ji nga xam ni moom lañ ci am ak cant gi nga xamante ni amee nañ ko ci Cheikh moom Mountakha Mbacké ak ñu ngi ak jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëñ Youssou Diop mel ni tey daara ji ñëpp am nañu mbégte ngir mbettum mbégte ak tawfiix joo xam ne am nañ ko ci teewaay Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké fii ci barab bi waaw jërëjëf mbég mi moom du lu ñu mën a missaal waaye balaa may wax dara ginnaaw yàlla dafa dogal nu mu fekk nu fi te sëñ bi yëgaluñu ko daan ñuy bett na sëñ Saliou daan waxee ne kuy ñëw sa kër doo yëgli doo doo doo doo yëglu loolu mu defal ñu ko te ñun ñi mu fi fekk xam nañ ne ñoo membre ya nekk ca sori sa fii ba Amérique fii ba Brésil France wala Afrique du Sud wala jeneen beneen réew ñu nekk foofu ñoog ñoom ñoo ci bokk tolluwaay ndax ñu ñëpp am pas-pas di liggéey sëñ ci biir Hizbut Tarqiyyah liggéey boobu sëñ Tuubaa nangul ñu ko ci loo xam ne du caaginu ne nun noo yeyoo sëñ bi nangul ñu ko waaye daf ko koo dimbalee baat yam wax keroog ne euh, sahabatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tawféex la ñu amoon nee na ñun itam kon nañ xam ne tawféex la ñu am tawféex jooju nag daf ñoo leeral mooy lan mooy liggéey sëñ Tuubaa bii ndax am na ñu daan wax sëñ euh, sëñ Saliou ne ko Mbàkke dañoo man di damaa bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa mu ne da ngay ñaan sëñ bi liggéey loolu ndax bu la liggéey loolu dina la jox ngànnaay Hizbut Tarqiyyah nag du ngóor ak kenn du njàmbaaru kenn kenn day lu sëñ tubaa faggu mu bokk ci liggéeyu yoon wi Youssou Diop doonu ci dara yoonam new ci ndimbalal sëñ tubaa moo ko fekk mu naroon dem ci sànkute nar dem ca sawara sëñ Tuubaa dimbali ko delloosi ko dugal ko ci mbooloo mi ba tax tey yii ak ëllëg bu ñu toogee ci biir ñu baax ñi duñ ñu seexlu duñ duñu duñu duñu duñu duñu delloo waaw kon nangul googu sëñ Tuubaa moo koy def sëñ Tuubaa mooy def ku mu baaxal ñi gën a baax dootuñ la xeeb ndax ndax ndax ndax ndax ndax suñu borom moo ko ko cëralee bés penc sax lay gën a leer kon sëñ Muntaxaa moom dañ ko ameel ak cant rek cant gi mooy daf ñoo euh, daf ñoo gàttandu daf ñoo taxawu daf ñoo dëgëral daf ñoo dimbali daf ñëw dooleel waaye nag ñun tamit yaar yi nga xam ne as gor war na koo mën a waat mooy ki la teral defal la loo xam ne mënuloo ko sa bopp nga ne man ah, ngor laa am jom laa am kon duma des ginnaaw duma ma ñaaw kon ki teral xam nga ne am na bis am na bëgg sëriñ bi moom ak bëggam mooy ñu dund sëriñ tubaa ñu jéem a xam sëriñ tubaa nee na nuñ ko gën a xam Ah, gën a xam yàlla nuñ ko gën a dund gën a mel ni yàlla bëgg kon liggéey baa ngi nii ndax sëñ Tuubaa moom benn tool la am def fee daf fee romb lépp wan ginnaaw lépp jël toolu rasulullah saa salaf def ko muy toolam doon jëwriñ ji ku jëkk ku mujj xam nga ne sëñ Tuubaa jëw jëwriñ ji ndax nee na ba bis pénc yonent bi saa salaam dina yëkkati loxoom baa rasulullahi kullu lanbiya alayhimu abqa salaamay rabbiya bi xurbati hachara sinina bi xidam xaalisatin lisil wu joodi wal xidam kon la mu doon liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na bis penc nit ak ginneeg malaayka yonent yi ñëpp dañuy teew mu ne yéen yonent yi liggéeyal ngeen ma ndax moo tax ñu tudd nabiyul mursal waaye kii nga xam ne moo ñëw sama ginnaaw doon ma liggéeyal kan moo gis liggéey bu toll ni liggéeyam bii loolu nag bu ñu amee sëriñ bu mel noonu dañoo war a fexe ba xam ne sëriñ bee gën ci sëriñ si waaye nun noo war a gën ci dongo yi sant